mën a nettali mooy ki fekk te du fàtte <laughs> euh, Macky 2012 dañ ci bokk te mos dox ci mais biñ demee ba ci biir deuxième tour ci na benn bokk yaakaar mm-hmm. ànd ci pour yàlla di may ndam euh, président ci orientation yi mu am parce que booy seet ba mu njëkk am yoon yokkute la woon mm-hmm. boobu plan Sénégal émergent amul moo tax ma ne la man mi ko tànnoon rëccuma ko parce que gis naa évolution bi mu am ci li ko Sénégal ñor mu bàyyi la mu waxoon mooy yoon yokkute indi plan Sénégal émergent mhm. te tey jii ku xool gis li am même opposition reconnaître na ni liggéey na li des kay xam nga fu mu dese woon ci ñun. ci naka waa kay parce que li mu war a def def na ko mais ñun ñoo waroon dem ci nit ñi di leen jàppale parce que li tax man di leen jàppale mais bu ma ñëwee man toog sama oto nekk visitante ànd gàddu kool mu toog ci kanam bu ma nuyu kenn. bu ñuy def lu baax koor ba koor ngay joxe ceeb yaa ngi dégg. Hmm. tabaski jox xar mais année bi c'est douze mois. la nga xam ne jox na la ko ci teraanga nay dem ci nit ñi ña feebar ñu jëm leen faj ñu ne war a mën a jàppale boo matalee lépp nag doon yàlla mais dafa am loo xam ne du politique. jaamu yàlla la. da nga jàpp ne président Sall ñi mu jox pouvoir jox leen ay ndombal tànk euh, teg leen fu kawe da ci am ñoo xam ne tey jii nii jegewuñu askan wi ba tax image yu Macky Sall xaw a am nu mu mel ci ñenn ñi. waaye loolu dañ ko dañoo am courage wax ko dama ne la dañu war am courage wax ko dama ne la 2019 hmm? première dame ba ñuy def Dakar daf ca bokk parce que dafa def social ci lu bare. présidentielle 2019. daf ca bokk waram amoon na ci solo. am na ci solo am na ci solo loolu dañ doon wax naan na ñëw. Hmm? mais dama ne la euh, politique loo am sa poste am nit ñi. Mm-hmm. dama ko yàgg wax ni borom ndakaaru bi jëf moo ma ko may. mais boo demee ba ci biir xam nga loolu wax lu may def suñu commune na ci commune am te gisuma kenn koo xam ne Sénégal da may génnal këyit boo xam ne titre foncier bu HLM sa papa ko moom man mouvement laa yoroon en 2011. Mm-hmm. bu tuddoon DMS. transformé ko en ramb réseau des amis de Mayel amul fenn fu may bu dem ci Ndakaaru ak ci Sénégal. ndax nit boo koy jàppalee doo am limite j'avais pas d'ambition personnelle man sama ambition yëpp moo doon na président am dam te loolu yàlla sutural nañ ci